soxlawu ma sa dara laa wax Fatou. yaay non man xam naa nekkete sama amphi bi fan laa ko jëlee sama bàjjen mooy kàpp mooy général. bu ñeenteelee dinaa loqati biir bi. indi naa la lekk jëlal nga reer. man maay lekk sa lekk yi man di dee xanaa dama dof. Zahra Daago bi ma xam daanaka sama yaay mi daal doon ci këram. am nañu architecte bi ba pare. architecte bi animu mu tax nekk fi ak ñun. parce que sous sous-traitant. C'est vrai que c'est très risqué. sa yaay nag dafa rey nit ci ay anam yu ñaaw kon lan moo tax duñ ko tëj. dëmm kenn du fecc ak moom dalay lekk. ñii xamoo sax lan la. leen pouvoir jaral. kenn sama avenir yaay mi ngi say loxo yow kese yaa ci mën dara te loolu gëm naa ko nangu naa ko pare naa pour liggéey ak yow. je vois que vous reprenez vos esprits au royal buuru jusqu'au 15 août plus tu utilises ton calpé plus tu gagnes Orange Monnaie tous les moyens sont bons pour ah. boire du thé Floria Floria Floria Awalibiz retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com achetez en ligne nous livrons partout dans le monde pour ces 15 ans, Leslie Mack vous convie à une fashion travel au-delà des frontières de la mode. Laissez-vous embarquer le 2 septembre à 19h à Douta Sec. Maël, vêtements et accessoires. Abarings, bijoux. Quintra. Fadia, dansira, stylisme et modélisme. Le Pop Shop. Mossel. Sobabel, Modèles dits La femme qui s'habille à Versailles, c'est l'africaine, l'européenne, l'asiatique. Euh, une femme qui est forte et une femme qui est surtout fabuleuse. Nabou Création. Lady Mona. Divine Lingerie. M60. Neneyaya. Matidi. Bijoux Jewelix Store. By Modo HLM, votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. 77 087 11 11. Bienvenue chez Bamba Partenaire. Jess habillement dit grossiste ci Tenue tenues africaines à diaspora de 25 commandes, commande nous livrer leen DHL par DHL le numéro 77 774 09 71. ba noppalu nga bu baax. man maa ngi sant yàlla comme yàlla def na ma gis la teg la sama bët yii jërëjëf yàlla sant yàlla bu wér. de toute façon kër gi sa kër la c'est comme chez le temps ñuy mëna a lijjantiwaat fenen fu gëna bax fi fii mais nag mënuma nekk ak yow chaque jour paaw may gën di lijjanti sama ay business ay business ah waye bu ko na xam tamit lan ngay liggéey da nga faté ni man ak yow demb lañ xamanté donc mënu lo xam sama lepp tay tay tay tay c'est impossible déjà man xaw ma yow kan li nga wax dëgg la waaye nag Ibrahima bëggoon naa lépp loo bëgg xam nga laaj ma ko ma wax la ko gis nga Ibrahima sama dund bi yëpp bés bii rek laa doon xaar lépp lu ma la war a wax dama ko répété ay yooni yooni yooni yooni yoon mbaa doomu fen comme Fatou fen yaay sama dund pour nit wax lu tax ma gëm la lu jafe la <laughs> Ibrahima euh, naa ak lu mu mënti xew ak lu mu mënti doon billahi Ibrahima dama la waatal de may sa ndey te sama bakkan bii yow yaa ma ko gënal dafa fekk ne nag bés bi nga juddu yàlla tuddoon ne man ak yow si la ñuy tàkkaliko Ibrahima est-ce que xam nga ne Fatou moo ma wax ne yow bés bi nga juddoo indaale woo bakkan yaay nit naka la mën a amee benn xeetu xol bu bon bi yaay Fatou dama ko jëloon def ko comme yaay bu ma su ko nëbbuma ko sama dara Faatu amul lu mu ko defalul ci àdduna ndekete loolu yëpp ay fen kase yaay Faatu lan moo tax mu am xol bu bon dara bëgg la xañ sa donoy baay dong Mansour di sa baay dafa mësoon a bëgg am doom bu góor te Faatu mënu ko ko woon jox Ibrahima est-ce que xam nga ne sa baay bokk na ci ñi ëpp alal ci mim réew loolu sama yon nekku si sama Bay amna alal wala ñak na alal ça ne m'intéresse pas bay bo musul gis xamoo ci mom dara lo soxla ci mom dara yaay ba fi ma tok di wax ak yow lepp lu nekk ci man man mako def ci sama bop hmm. du nday du bay du kenn teewul li nga mom Ibrahima ding ko jël ndax alal gi dang si am wal fatou nak du ma ko dóor du ma ko saaga waaye dinaa ko xañ li mu gën a bëgg muy alal Ibrahima xool ma fii dama bëgg alal gii li nga si moom na nga ko jël ndax man sa ndey ma mën siggi lu leer laa la wax

alhamdulilah lii de yàlla rek a ko mun nag waa kër ga sant maam Gour jaaxaloon nga ñu moom trop fan yi alhamdulilah ñun ñëpp a jaaxle alhamdulilah ñëpp a tiit ci yow wallaay wallaay ah, waaw maa ngi si jàmm nag alhamdulilah waaw ana uli kii ne li nga def doo ko mënee. mooy lan kii ne nga joxoon adresse boo xamante ne ça fait deux jours on est là di xaar uri uri ñëwul. bu dee da nga dem te gisoo fi mu nekk xool ko ci adresse bi. gis nga ma sa looy def na gaaw ndax Mansour génn na te uli rek lay wër ko gisee dina ko téye. ndax jàpp na ne dom ci moko jur kan mo jur domu kan sama dom man suñu dom <laughs> d'accord li ma adresse bi da ok gis na yow dama bëgg nga siggi nga xol ngay def ak sa kanam gu ñeme gi gis nga bés buñ fi ñëwaaté ngay def ak sa verre yi ngay melni ni bu naan diwlin la xol xamni ni nga gis nga suñ fi ñëwaaté

dafa melni xamul ne maa ngi fi waxu leen ko ko xanaa. xana lu rabbi wol mako ba bo pare nga bol ci Fatou. waaw tay parce mom il faut mo wax mom fo mo boo xol wóol ñëpp a sax d'ailleurs. kinni ak ay doomam. ay ma Mansour yow di la kinne def yep ya koy wolu wat ne. bu ñewi da nga xam lutax ni rabbi wax na deug yeen ñe moy seen kilifa borom keur la du seppi ki bàyyi kii ay jabar ngeen. c'est normal mu convoqué leen yéen ñëpp ci kër gi ngeen toog wax ko defu leen du am sens jàngo man xam naa ne mere nga ma te xam naa ne dooma mës a baalit waaye dama bëgg nga fàttaliw ne man maa la yar dugal la ci école yu baax yi di la fayal ngay jàng ba nga am say diplôme te sama yéene ci yow moo doon nga nekk ci bureau yi comme say morom man foofu laa la yéene woon waaye yaa ber sa yoonu bopp war ngaa xippi say xool bu baax te xam ne man duma sa noonu bul yaakaar mukk ne man dama am bañeel sama diggante ak yow bëgg gëma la bëgg keroog ba nga juddoo ba tey noonu laa la bëggee gis nga yow bul xalaat lu tollook benn seconde ma am xolu yërmande ci yow bul xalaat ni man mi taxaw jakarlo ak yow di wax gem na ni am nga xol xolu yërmande bu jugee ci yow ñew ci man muso ma bëgg ñaataat nga xañ ma sama nday ñaataat nga may lo ni sama yaay dundul ñaataat nga may lo man mi aw ma ndey aw ma bàyyi lépp ndekete ay waxi kese la te lu ne defloo nga ma ko fu ne dugloo nga ma fa lu ne waxloo nga ma ko musuma laa bañal dara ndekete loolu yëpp sa intérêt bopp la woon yow kese fii ma toog nii di wax ak yow sama xol bi soo ko xaree sa jëmm ji moo ci nekk bañ la trop. mën nga maa bañ a bëgg mbaa nga gën maa bañ a gëm waaye dama la yëgal ne la sa yaay. sama digganteeg moom ak sa diggante yaay ak Mansour ak man sama digganteeg Mansour loolu biir néeg la yoonu xale da cee nekku te dama laa wax ne la yaa nga mbir mi sëb la la ko bënn ma nga ca biir te wolof daa demee wooy woy këpp gaal kenn du ko mox ci tafes te yow xanaa xamoo ne sa mbokk bàyyi ak sama wujj yi bu nu xamoon ne Mansour moo la jur kon rey nan la bu yàgg faagaagal la nga dee ndax ñoom alal moo leen alal la leen waaye man am cofeel am bëggeel ci yow doon la aar guddeeg bëccëg ba tax diiru fanweeri at lii ma nëbb la sarax ma ngir yàlla ak say wujj seen pexe lu muy rëy rëy rëy rëy yépp sama bakkan bi lu muy foor foor foor benn seconde bu may toog ma jàkkaarloo ak sama yaay ma xool ko mu xool ma ma xam ne moo ma jur moo ma ko gënal foofu du dangay ngay wax génnee sa kanam gi pour yow damay am benn yërmande ci yow baalu ma la amatuloo jarbaat wala amatuloo doom bul ma sax xool xool bëtu kii doom la wala musuloo jàngo kër gi tout le monde compte la woon lu ma sa naqari ci àddina yow yaa ki ma ko doon fajal yow yaa daan taxaw ne may tànt boo soxla woon weer bi ma fanaan di tëb boo soxla woon jant bi ma yendu di tëb tey jii la lii jaral tax nga woon ma ginnaaw ndax maa ak yow la woon ma jigéen newu fi woon nga may wéttali nekk samay gët kun boobu ma bàyyee may sonn te dinaa taw sarax man ngir yàlla sarax ma ngir bul dem toogal la soo toogee ba sa xol giif ñu waxtaan bu ma def nii gudd nga ba mun mën a dëpp gàtt nga ba munuma laa ron mais na la wóor ne lii nekkul lu may bàyyi. bu ñaan yàlla xam dëgg gi de Je ne naa la bul ñaan yàlla xam dëgg gi dëgg gi waroo koo xam. yàlla baax na ndax yow waroo xam dëgg gi. bàyyi ma Votre série revient après la pub. Jusqu'au 15 août, plus tu utilises ton calpé, plus tu gagnes. Orange Monnaie. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Découvrez les super unifiants et clarifiants. Alpha arbutin 3 plus papaye et gluta banana d'avance sur la beauté. Malaysia pour femmes, Malaysia Uomo pour hommes sont les lignes complètes de déodorants parfumés. Pour les ados, voici les Malaysia bonbons pour une sensation parfaite. Pour plus d'informations, www.mirato.it. Bienvenue chez Bamba Partenaire. Thiès habillement di grossiste ci ay tenues africaines waa diaspora def leen seen commande ñu livré leen ko par DHL jëlal numéro bi 77 774 09 71 yow lan mo len dal yow ak sa yaay li ngeen def nan ngeen ko mané mag ji xanaa nag booy dugg ci bureau jambour sax nga fagg mais bon graw togal ma may la ndox eh toguma nanuma gis nga li ma la laaj ni c'est clair net et précis sam papa bi ngeen jël def ko ni ko bàyyi di piqûre matin midi soir di droguer pour lan la yak may tomal nak yéeguma tinuma te sax nag diggante jëkkër ak jabar yoonu doom nekku ci di te li lijjanti sa problème moo gën. c'est toi qui a tout déclenché yow yaa dem jëli sam papa ci hôpital bi yóbbu ko ci sa yaay ju bon jooju. lu mëtt bëgg rek loolu la bar bi bëgg te bu nekkoon yow it noonu nga koy def danga koy yóbbu sa kër mais bon loolu yëpp garaawul may ma damay liggéey j'ai des dossiers juridiques à régler damaa bëgg nag nga may ma ma jaar dossier juridique bu ndaw yow mën nga fenn àdduna bi yëpp ba des sa bopp Fatou ndaw. yow bi sama moroom yi di jàng lan nga doon def taxawaale ko tendeefal biir France loolu nga fa nekkee woon bul yaakaar ni nag xamaluma la détrompe-toi sa diplôme yi ngay jël di affiché di tout ça ça a été falsifié mën nga nax ñépp nag surtout ta mère parce que c'est une tricheuse xam naa ko elle est très fausse mais man mënoo ma dupé am hein. yaa ngi juum nag ndax ndaanaan moomul juum de te daara leeru la ci ne am naa diplôme wala aw ma diplôme ma jigéen mën ngay menacer

nenn tuuti man xam naa ne dugal ci goota waye dama lay ñaan ni ma la wax def ko bayima fi bu bul mu ko sa aduna ndax man yaay kon duma don dom ju bax suma la fi bàyyiwee il faut que ma genn la fi ab demb bu ma la nga def li man nit duma nek ndey ju bax amuma benen choix il faut que ma def ko pour mën la fi génne. neexul ba neexul kura waaye sa plan bi gisuma ci dara lu baax lu dul soxorante ak fayu te si sa fayu boobu loraale xale yi te loolu duma ko nangu. yow Mountaga yow dafa dafa am looy bañ ak looy bëgg. xanaa da nga fàtte ne fii maa la fi indi ah te yow plan bi ngay wax sax yow pion kese nga si waaw. te bul fàtte li may def samay noon bu la àddina jëy mukk ba nga tëkkuma Mountaga. tëkkuma la waaye plan bi bu antuwee day takkale xale yi ak seen waaye xale yi boo leen takkale ak seen mooy lor nga leen ndaxte nit amul lu dul ndeyam. gis nga plan bi. duñ ci changer yota parce que dañ ci waxtaan ba jiboo deng change mind xaju fi yow kay li nga wara def moy gëna a Zahra def tout pour mu jox la confiance deng mu jox la nopp bi parce que procès ba nga jege dé té mom dañ ko soxla bu baaxa baax gis nga so bëggee récupérer xalé yi sa intérêt moy rama dé ci kasso bi you're right man dama xalé yi xam rek nu ma baax na so do what you have to do okay gis nga ngoone ñi faw ma wax ak ñom parce que sama feebar bi kenn taxo si ni mu ci wara taxawé ku dul yow du yon ci kër ndax nga xam ci dara sax yow yaay borom kër gi nak mais feebar ñi ñi wax salaamaaleykum Mansour noo def yaangi tamé ma ngi tane boo ay nga njoor tane nga bu baax mané amu ni jaay amu tonton da bañ nga fontuma la wax ana Ibrahima ngóone kii faw ma wax ak moom may ma tuuti. waaw Mansour xam nga lu ma bëgg na nga yow nag yow laay waxal xam nga ne benn lam du yëngatu si loxo rawatina nag gis nga wax ju yegg dafa ko moom kon maa yegg ci biir te ñëw. jërëjëf Ngoné man de li ma lay wax rek ne ba ma duggee ci kër gi yax ci àllaaxira jël ma dénk ma la man du may wax lu bon mbaa ma koy wax mbaa ma koy jëfit. bu soobee yàlla lu ñaaw du génn ci sama gémmiñ mukk gay waaw maa ngi ci biir dégg naa ko waaye maa ngi yegg biir Fatou xoolal bu ma fontoo laa la wax dama ne ana Ibrahima Mansour yow doo def nànk ah loo mel ni sonkaloon ko ma réeroon ca féeri ba ca Gàmbi nii mais boobu léegi munoo fexe ba war ma ko nga may naa defal nànk mais dangay def nànk xamal ne kii fanweeri at boobu ba tey gisuloo ko kon nag boo defee nànk rek di nga ko gis bu soobee yàlla gay waaye kii lu muy wax nii. dama ne Ibrahima gis naa ko. gis nga ko fan doo mu ci moom bon. dalal mën a koo lu tax loolu. dafa am luy ñuul ci soow mi te liy ñuul ci soow mi faaw nga tekk tekkaaral. fanweeri at mën a gisuloo ko kon da def nànk. mais loolu lu mu lan la. Ibrahima mi ngi fi waaye yaayam it muy soxna mu ngi ci. soxna soxna man. soxna mel ni yaay Ibrahima. ci nga may laaj fan laa nekkoon ok ci faatu laa demoon ci faatu laa demoon pour déglu version kon yow ak li ñu waxante ak lépp li ma la expliqué amoon loo may wax lu dul naan ma danga demoon ci faatu dëkk fa recueillir une version. c'était la moindre des choses Mais ce mais loolu mooy lan Ibrahim. parce que Fatou l'a xam Fatou l'a daan gis kon ak li expliqué c'est normalement dem fa pour déglu pour la wax dire. à def que ci Fatou. ok bon Fatou c'était juste pour me protéger. Hum. waaw mais xol man loolu sama yor nekku ci. man ne dama bëgg nga wo ibrahim nga wo ko léegi ci téléphone la la wax. allo. waaw Ibrahima. waaw man la man sa tante Fatou. sa papa mo ne daf la bëgg gis légui té lu mu gën a gaawee non non mënul nekk. nga ni. waaye indil waaye indil indil indil. yow Mansour sama lax bi nga bëgg a yóbbu. allo Ibrahima ma ne dama woote table ronde ci kër gi. Eh, dama bëggoon nga ñëw ñu. coupé na ma di. war a def nànk de kii fanweeri at laa la wax tegoo ko pët xamul ndax yaay baayam. yo nggak nga wara def nank Mansour Mansour ngat ngat gi ngay ngat-ngati si man nga wara bayyi maksa te nga bayyi mak sama xel ak sama xalaat ma dox ko wax ko bu indi lako ci sa kanam may na lool mais bu mu yak ci fan yi nak la la may ah, lan mo xew Mansour Mansour sa bay waaw lan la da fay def da dafa mi dafa bëggoon ma ma ko ñewuma Ibrahima xool jugal yére nga ñëw ñu dem ban heure la la wax. Eh, demuma fenn. Ibrahima nga jug nga sol sa yére nga ñëw ñu dem réunion bi foog nga fekkee ko yaa ngi dégg solal sa yére nga jug ñu ah, dem. j'espère que déggoo ma ma ne man demuma fenn. Pape Demba nii la kontaan naa trop. gis nga bàjjen soo ko soxlaa même su fekkee ne yow munoo ñëw ba ci man nga woo ma man ma ñëw gis nga dama nàmp jox seen papa mu nàmp man yéen laa fi nekkal te sax àddina rek moo tëradi waaye yow bi nga nekkoon xale sama xarit nga woon Cheikh Rafet moom laa la doon wooyee. loolu yëpp baax na mais dama bëgg nga wax ma ci sama yaay loo ci xam te man xaw ma ko. Pape Demba lu xew. dama nekk ci benn dilemme. te dama war a jël décision bu importante te bu dul dara bàjjen dama sonn ci insinuation yi ak junj yu dul jeex dama bëgg a xam lan moo xew dëggantaan exactement lan moo xew. en tout cas li ma la mën a wax mooy seen yaay lu mu yàq moo ëpp li mu defar waaw seen pap nit ku baax la woon nit ku yiw nit ku amoon avenir a ngi nii waaw léegi nag lu ko soppi ba sànk ko ba nga xam ne muy dóor ak di drogué loolu sa yaay nga koy laaj Pape Demba waaw waaye li ma wóor bu wóor mooy seen yaay dee ci kaso bi sax moo ko gënal wax dëgg bi yow la moo tax mënuma ko wax waaw léegi-léegi yàggatul yow sànq ba tey maa ngi seddal ngay tàngal dama bëgg nga ubbi sa nopp yi bu baax a baax a baax dégg déglu ma gis nga bu fekkee da nga peser sa bopp nga xool sa poids mu diis gan ba tax nga may affronter man sa ndey ndax nga sa bopp gis nga sa yëpp band yi sa yëpp délinquant yi nga wan ka sa gaa yee nga xam ne dañ lay yaakaar ba pare ragal la man maay sa ndey man boo ma xamul danga may laajte gis nga wuyu bandi mooy baayam waaye bandi beegar moo ko jur gis nga réunion bii yow yaay kese yu dem ndax sa baay foog mu gis la te yow foog nga gis sa baay te Ibrahima bul fàtte da juddu ñu taqale la ak sa ndey taqale la ak sa baay ndax lan fanweeri at ndax alal gis nga alal googu tey yow yaay ki nga xam ne yaa koy jël di ko ci seen loxo te kenn du la mënal dara te dara du la ci fekk ndax man naggi naa man sa ndey man maa lay ngemb te man du ngemb mbër muy daan yaa ngi dégg est-ce que c'est clair waaw wala déet c'est clair dama bëgg une dernière chose ak lépp lu la mës a mënti métti na nga jàpp ne sa ndey man man may ko koy faj d'accord jiitu nga changé yi te nag loo ci xamul opération bi ma koy diriger ndaxte dama am diplôme ci lépp lu ñeel xotti dagg loqati 点评 maa leen fi dajale yeen ñëpp ndax lu munte xew yéene sama njaboot te doy ngeen ma seede ma bëgg leen xam ne bés ni ki tey ni fase naa ko juróom-ñaari yoon subhanallah allahu akbar waa papa lan moo fi jar lii yëpp doom noppil sa ndey mii toog mën naa jooy di jëm Mansour waxoon naa la ko ci njëlbeen gis nga man sama sey du gemi ñakoy tas waye tribunal lay doon bu la ci gënalé nak ay ca nañu dem di yéeg wacc ko wàcc bisimila loolu jarul ta wax de te yow mi yaay dem tribunal waw ay eh, yow da nga fogoné marché mi nga kim nappi dugal ko sa kër di def lu la neex fi lay mujjé ah tété du yomé nonu di dama am ay mok porté na la plainte nak da nga wajal sa bop te yow mi yaay ki dem tribunal ngoon ki day wax rek xamni mu def lan la yow fatou yow doo di ma yafijik, yaa fi jëkk ya fu gënoon woron gëna bax ngay complot sama ginnaw li ma gën bëgg sama adna nga mu koy nepp la nga war def nak xam nga ko boko defulé dumul musa bal rabbi tamit nga la mo gërëm na la lool mais kenn du uli nak ba xam moy sama reenu xol uli ma ëmb sama doomu boobu ci lan la ne mais xamna ni amna sama yermande amna sama ngeureum té lén na ma bëgg na ma ma bëgg lén wax ben affaire ngeen sédé ko man mii jëkkëram gërëm naa <laughs> mais Mansour nak vraiment yow yaay ñak ngor yow Mansour yor sa jeeg yi tok ni leung nga tok ne da ngay tag xalé bu ndaw bo xam dafa ëmb té dom ji mu ëmb do bayam ki dama bëgg ngeen wax ko deug